ngir man dama bëgga mel nooni te mel ni tama sëriñ bi may ma ma mel man mi na sedd sa xol ngir man dama bëgga mel nooni te mel ni tama bu jant fenkee ma xëy te jéema mel na la saf mu gën ma fa jafe wu wallukat wuyu ma naaw ndigal am ngërëm naa daldi mel na la saf man Baabakar mi lu dul mel nii la saf safuma fasoo na ma ba lu dee si wutte wut sa ngërëm baam ko mbaate ma dee giñ naa ne man kafuma ndegam dangay saraxek jur man sarax ma ngërëm boo dee naxey alalit jàppal ngërëm naxe ma ndegam dangay saraxek jur man sarax ma ngërëm boo dee naxey alalit jàppal ngërëm naxe ma na saa digg yow rafet tey neex kay wér a tey leer kay juba jub man maa la nopp jege ma yow yaa di ndaw si nopp yal naa la yeggale ren yal nan juboo ba dun tàggooti ay wuyu ma yow yaa di ndaw sama nopp yal naa la yeggale ren yal nan juboo ba dun tàggooti ay wuyu buurub aras noo la làqoo faw yal nanu raw te moona kët noo la sangoo faw nanu të buurub aras noo la làqoo faw nanu raw te moona kët noo la sangoo faw nanu të yaa raw lu bon faf te wopp dee te jinne te nit lépp ak malaaka te nag saytaane të yow yaa te lor yaata kuy lor yaata buuraki dak te yaa di kenn ku diisul notte diisu kota yow yaa rafet rafetu mbër ndaxte kenn ko gis sab jël mbaate mu mas koo dégg sax dafa të yërëm nu faw ci barkeb mépp mbër mu la saf te def nu mbër moo faral moo xam ni lëf du kota yal naa di sab lar bu deesul seeru ay ko dal lu yàgg lu yàgg yàgg te deesul dégg yiw wu yal naa di ko rafetal muy sant rafetal yal naa di koy rawa kay daw landa yal naa di sablar bu deeful dégg ndam lu ko raw lu yàgg yàgg te deeful gis ndigal lu yal naa di baykat bu deeful dégg añ bu ko moy te kenn du gis fenn dàggay mbég juréy ju yanaa di sab lar bu jàmm ak wépp yiw jafewul te bañ di sab lar bu jàmm ak wépp yiw ne të yanaa di waaju la saf joo xam ni lëf du ko jot lu dul lu xolam dal xel mu nekk te të yal naa raw su lëf lu ne faa raw ko ñépp la të yal naa jotu lëf lu ne faa jot ko ñépp la të nun ñépp yal nanu jot ci jot gu jaamoo te jot ci seddu xol a xiiwal gu nuy jaamoo nun ñëpp yal nanu jot ci jot gu nuy jaamoo jot ci seddu xol xiiwal gu nuy jaamoo yéefar yi yàlla bu ñuy tal kenn yàlla bu ñuy am jot gu ñuy lore kenn ak jot gu ñuy ŋaayoo ak topp yàlla gu tal sax ci yàlla nanuy ñub yéefar ak njuuma dul tal nuy rawub ñaawoo njariñ yu rëy yal nañuy tabeeka génn ci nun tey fenka kay ci nun nuy sant waaru yiw yépp yal nañu dëkk ak nun di dugge fi nun xalwaa ka génn fi nun ñi nuy gërëm kaaru ndoleen yu tedd yu dul dog yal nañuy saxa sax fi nun ni gàñña ki nuy dëra taaru doolay ndaw ak wérga ak naatam ga yal nañu sax ci nun ñu may nu fu nekkuk cantakuk dëeru saytaane yal nañu ko yeew ñoñam te saxal lee ci kër kër ñu naa moo fu nuy jaaru ñun ñépp yal nañu nu yeew ak tiraanga saxal nu ci jub ak yiw nuy suuxalub gaaru koy bañ sunu kawe yal nay liw di lox ba du tal guddee ki bëccëg lu dul taalam su muy ku nuy fexe suufu yal naw ay bawoo ci kawam bawoo ci suufam ñu tas koo tas mu xar ñaaru bépp jullit yal na jàmmam sax ñu boole nu may seddu xol ak ngërëm ak xiiwal gu nuy jaamu sëriñ bi nun yaanu rokkas yaanu roofatu yiw yaateenu ab yaanu teexey daanu yaa gën a baax sëriñ bi nun yaanu rokkas yaanu roofatu yiw yaateenu af yaanu téexëy daanu yaa gën a baax doo fecci wëllëre doo bës kenn doo dige wor ku dul mën a yam yow rekk rekk a fi baax ku dul mën a yam day gindi def lu rafet deloote ci bon banam yow rekk a way ci lu baax koo xas ni cas jëme kaw kaw rekk lay xala jëm du daanu mukkati jaajëf sant naa la bu baax yaa tax ñu nuy sopp bég yaatee ñu nuy bañ a bég budul ko nag yow lu bon am sant naa la bu baax doo fekke gàcca te doo seetaanu ay jërëjëf dundal nu dund sa digg ak nun di dund ak a baax koo xam ni kii mas na noo xëy wacc xëy nga nu yow nu fukk kemam cay sew defi naka baax bu dul ko nag yow nu xëy bis daanu jël bu rëy fegal nga nu jël faaw ak def nga lu baax man fa tewoo ma te seetaanoo ma yaa ma tere dee sax bu yàgg ba nee faa donte dund na baax koo xam ne nag moo la may ak dund jox la alal musal la ci jël mat naa jox sa bopp bu baax jox naa la saa jëmm ji ak lépp lëf lu ma yor musal ma saytuma may mag yegg faw gu baax rokkas nu dàbbat nu roofat noo ku yiwu nu saf nu jekk-jekke ni kekk ak lépp lépp lu baax yaa gën ci aajo ku dul yow kenn melul ni nga mel doo jàpp aajoy ségal muy jëm ëllëg di forox yaa gën ci aajo ku dul yow kenn melul ni nga mel doo jàpp aajoy ségal muy jëm ëllëg di forox sa nopp bii ku ci tàbbal aajo faw nga faj xamoo ci aajo lu dul faj mbàkke ñépp nga jox yaa jox ku nekk mbégam rendil ko ak tawatam suulal ko aw naqaram askay lu dee fati wax wanaa la waxtu wa may xaaraani reere ki añ nga dal may wuyu jox may ndab yu tedd yi sax woonaa la it ba ma daaraf leeka xiifa kamar nga dal may wuyu faj saa awaaja ki ma nax woonaa la it may suxloo ka ba ka xas nga dal may wuyu teeyal saa bakkan ba du xëx woonaa la it bañu may suufee la defu ay nga ñëw ma yëkkati may may ndam ku nekk di lox woonaa la it may wax yaa kasoo bon nga ñëw safal ma ma saf nag sàpp ñépp ni ax woonaa la it may jànnee ka tas nga dikk yaatal ma ñay buuxee tas nga jañax woonaa la it bañu may wax kenn yeesu la yow nga ñëw ma fal ñama daayab ñépp rus te torox setal nga saa tuuma xëy baaxal ma ñépp de gis nga far samay lor fegal mag ñàkk yaa ñori sox sa benn sox rekk moo gën fopp junni bi sox yaa may ku nekk ndawal yaa mat di sant ba xëx ci paddu ngay jam te doo mooy mukkuloo fi talit du sooxa kay jéema dem ñuy bëgg a jàpp mu fëx fital nga xol yi ba mboolem xol yi daa fi yow nga ñot di jëm muy def leeni murit yu forox sa dund gi yàlla na yàgg ak jàmm gudd te yaa noy teewa lépp te ànd ak mbég yu lor amiina amiina nun ñi ñépp yàlla na nu am cantuk kadul bàyyi aajoy jëm ëllëg di forox matag bambaati ak gaayam yu am yi lengor koo gis ma ngay laxasoo kay sonn kay rafetal ma tagg bambaati ak gaayam yu am yi lengor koo gis ma ngay laxasoo kay sant kay rafetal moo gën sëriñ sanu daa dégg ak sëriñ si nu gis gaayam yi it ma sunoo gis fenn gaayu ni mel doo fekk waayam di sàkkoo am lu dul ngërëmam bamba fi gën gën fi ay gaayit ku weddi xamul xaajoowul ak yàlla boppam lépp jox na ko moo tax ba waayam du aajooy ajjuma ki ngonal as gor du xaajoo dafay fab lépp dem joxe ji te fab rafet njortu ak gëm yàlla def ko alal kilee rafet rafetu nit waaju koy ayibal laabal na dootu tilim ak doxul ak dexlu koy tilimal ku bëgg am fulla tey day fab mbiram ni ko am sëriñ sëriñ lu akay kës kës lu day doyadil yàllaa fi nekk te nguuram gépp boole na ko fab jox ko muy séddale kay toppatoo ku amul ku bëgg tàbbi te bunt doo mën a wey ku namma tàbbi na dem neexal mu daldi ubbil kug réyu jàpp ba doo jóg dem fa neexile ko kug réyu jàpp ba doo jóg dem fa neexale ko gembul wayaani te bul séenooti mukku ndimbal kuy wut alal aku nit ak barke nan ko jisi yàlla ko def mu di kay fal yi bindee fa kafal sëriñ bi saytu nu yow ngir yàlla bul nu bàyyi koo saytu dootu fi rot koo saytuwul dana yul yaakaaru nu i baay ak juddoo ki kaggu yow yaa di mbubb manuy yaakaar a kay nara sol sunuy kër dikk fekk si la ngir sikk sun bopp ak sun kër ya nu dalal man jàpp naa sama xol bi teg fa yàlla bu wér faw fa mboolem ña koy mokkoo jaamu bu wér man jàpp naa sama bu wér faw njagam damay jubadee kay sax ci def lu warul xol ba ane a ànd ak ñi sax ci jub te sax ci lu war njagam damay ku giseeful muy fanaana sikar teewul samab xol ne dàkk ak ñay fanaana sikar njagam bu guddee ma songub lal ni xëmm ca kaw xol ba a ngi ànd ak ñadul mu seeni lal ba fajar njagam dama boole mboolem guddi yépp rayit xol ba a ngi ànd ak ña dundal seeni guddi bu bir njagam bakkan bi damay noote kanot aka war xol ba a ngi ànd ak ña koy not nos ko jàpp ko war njagam damay waaju ay noonam notit duma di soppa kay sant ñay xar boppi noona kacar njagam damay ku na koo xam ni ñépp a ko man xol ba a ngi ànd ak ñara aw fit ñemeñ bari ngor njagam damay waaju sellul sellalul duma di soppa ñay sella kay sellal fu ne ka defar njagam damay dox di manqué kay tayee la des xol ba a ngi sopp ñamat faj gàcce jiitu sawar njagam dama ne fi suufit maa ngi sopp a kañee mboolem ña nekk ca kaw ñoo tedd ñoo jara jur yal naa ca bokk yal naa ca bokk ci baaxu yàlla gën ca bu wér te jur ñu bokk ci ñoom ak jàmm gën ca bu wér faf naa la jébbal samay mbir lépp ngoogu fabal te faf ma saytu bu wér sab saytu moo gën a wóor faf naa la jébbal samay mbir lépp a ngoogu fabal te ma saytu bu wér sab saytu moo gën a wóor maa ngi samay mbir a ngi jàppal yoral defaral baaxal musal watu ñak feg lépp luy taxaruur dakkul nu ay falangal joo xam ak ju xam xetul nu waa meew ngëneel ak mbég wutan lu ñodul nu lépp lu seddub xol mu ñëw nu nuyoo jàmmante jàmm moo ne dàkk ak jàmm ji fegu toor ñodil njariñ la ca ma madinatu ak njariñ la nekk ca tuubaa yët nu yow sunu buur jàppal nu yiw wi ci suuf ak yiw ya nekk ca kaw ak yiw wu de aw aw jàppal nu yiw wi ci suuf ak yiw ya nekk ca kaw ak wépp yiw bu ñu def seenub diggante nu ngor mboolem njariñ yi ci kër gi gépp ak ya ca kër gee gépp yal nañu nuy lew faw tey sunu muur roofal ci nun faw bépp xam-xam ak njariñam te nu sab yoroo gën sax fapp yor yetu nguur musal nu faw ci buur ak yat wayal nanu mooy tey ak ëllëg dal sunuy bañ bopp taj na yuur jébbal nu mucc guteel ak barke ak mbamu sax ak yërmandey dex ji nuy tàbbee ka féeye ka seppil ci nun seppil ci nun yi ci duniyaa yépp ak yacalaa xeraati jébbal nu fawwet sàll cant yu luur seppil nu yiw yi ci duniyaa yépp ak yacalaa xeraati jébbal nu fawwet sàll yu suur yokkal nu àddina lool ak jëf ju yiw ju la saf junuy saxal fi aw ak loo sant cant gu wóor naa mu ci man ci lu dul yow bàmba ak sa ngërëm lu dul yow ak sa ngërëm fawit na mucc ci man naa mu ci man ci lu dul yow bàmba ak sa ngërëm lu dul yow sa ngërëm fawit na mucc ci man samab sama làmmiñ ak samay cere ngi ma boole jébbal la nag tey jéem a def li ma man naa gudd fan baaxi jëf barkeelu fan amu yiw te mucc fàww ci méppum dog te sax ci la gën lu dul yaw ak loo gërëm loole na mucc ci man ma mucc fàww ci moomit ak ci lépp lu bon dàkkul ma lépp lu bon dàkkul ma képp ku bon dàkkul ma it gépp bon xajil ma it nekk fu bon dàkkul ma lépp lu bon dàkkul ma képp ku bon dakul ma yet gépp bon xajil ma nekk fu bon saa dund gépp nafar di wiiwu len raxul sellal ma sellal samay jëf may ma mbir mu yéwén te naa la sopp cofeelu jàmm it gu rafet te gëm la gëm ku rafet màggal la def la na gën dakul ma càggante may mag farlu yee sama xol sol mag cawarte ma tàggoo kuk ngone xaran te doon di xel mi ak saa ite yoo ku ma gëm te ma indu cant gu dootul deñ ca tàmbul ren guddal nu teg nu ca kaw ñéppit ba kuy ne fi nun lu am amuk kawe mel na ñax gu nekk fi ron fenkal ci nun faw def nuy jant mbaake yu dul somuk ko tey leer a kay daquk lëndëm ak i fen mboolem ñi lay topp seeni aajo boole ko faj te jàpp seeni xol ak sab xol seral ko ci man mboolem ñi lay topp seeni aajo boole ko faj te jàpp seeni xol ak sab xol seral ko ci man subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin